très bien dalal ak jàmm euh, ponk bu njëkk bu ñuy yëkkati dafay ñeel euh, message bi nga xamante ni président de la république son excellence Macky def na ko ci fin d'année bi euh, naka nga ko jàngate ak ban nga ci am. waaw message wala boog discours du président de la république bi nga xamante ni amal na ko jàngat bi ñu ci njëkk a def mooy que ni discours la bi nga xam bi ñu doon xaar. bi ñu doon xaar ci contenu waaye contenu bi nga xamante ne moom lañ doon xaar dëgg dëgg dëgg wax dëgg neex yàlla amuñu ko parce que durant toutes ces années ñu dénk la li nga xamante ne mooy le Sénégal nga am ñaari mandat on n'est pour wax ni lépp lu mu fi def dara baaxu si ndax nit munoo ko dénk ab réew jox ko budget bu bu ñuy toll mu pare nga ne lu mu def dara baaxul su boobaa ka lay déglu wala ka lay seetaan sax dafay xam ni la ngay wax ni incohérence moo ko lal waaye nag le contenu du discours mooy lan buñ ko càmbaree jàngat ko bu baax dañuy xam ni daf ñu fi bàyyil un grand chantier un grand chantier bi nga xamante ni mooy lan buñ ko tënkee rek en un moom la président Déthié Fall di woowee le stress social stress social boobu noonu lu koy firnde mooy euh, le challenge principal du sénégalais mooy lan le prochain repas le prochain repas boobu gis nañu ci biir discours am waroon na ci wax waaye waxu ci wax na il a mis l'accent dès l'entame de son allocution ci wàllu paix wax na ci stabilité wax na ci justice bon wax na ci populisme wax na ci euh, yeneen ak yeneen yi nga xamante ni boo ko dégloo dafay mel ni daa am peut-être ku muy euh, tëkku wala bokk ku muy gaaral wala ku muy wan ni ah man de maa ngi fi ba tey donte maa ngi dem waaye sama benn tànk mi ngi ci biir sama benn tànk mi ngi ci biti boo dégloo premier paragraphe discours bi rek dans le fond loolu ngay décortiquer pour dire vrai